waaw lii de di lu nu bokk démb c'est sunu maam Alhaji malik ak sunu maam Cheikh Ahmadul Khadim ak sunu maam Cheikh Ibrahima Fall man ci taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall la wante biir kër maam Alhaji malik gi sama maam dafay liggéey ñu koy sëñ taseloo mu ngi fii ci biir xalxuus ak njabootam liggéey boobee mu doon liggéey nag man am naa ci ab cër ndax fii ma toll nii di wax ak yow Serigne Cheikh mii nga xam ne mooy xalifu Serigne Mansour ba ne

yeneen yi ñuy tudde ay kër du ay kër ay nekkuwaay la rek kër yaa ngi nii gii kër ku fi tëdd dootoo fi jóg mukk ba bis penc jot te fii boo xoolee ay boroomi étage yu bari ñu ngi tëdd fii te ci ay étage la ñu leen jële ñëw ñu tëral leen fii te dootuñ jóg mukk ba kër bis penc di jot xalxuus moom mook bàqee ga ca Tuubaa ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk maam muy seigne Touba ak maam Alaaji Malick fii mu nek lañuy bañ fa Touba lañuy bañ fi ci Tiwaawan lañuy bëgg fofé ca baqiya mom lañuy bëgg fi ci khalkhous kon képp ko xamni ki kii nañ ko fi sun ndor ak suñu xel day dal te mom sun ndor rafet ci mom ci xamni mam aladi malik dina ko téro te dina ko téro ñi leen di taxaw itam sunu borom dina leen fay seen taxaway bobu ndax ñi ñi taxaw mënaluñu seen bop loola waye ku leen fi mujj leen ko taxaw مام الله مالك دينا لا في الدنيا والآخرة نجر جين جيك الحمد لله رب العالمين سنتنا يلا جلسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي أمات كونتانت ما بباخ باخ باخ باخ باخ كونتانت نين بباخ باخ باخ سي تخواي بي كونتانت نين تمشي تيواي بي كونتانت نين تمين سي بني خيري جس مولو ميني فتبارك الله باسكو ووتي xey ba ñin ñi nga xamanteni ay doomu tewal nañ bok ci direct sidaji malik le temps que ñuy sol suñu suñuy yére sax di ñëw sa fekk nañ fa tabarakallah sëg yi leer nañ ba si biti fa tabarakallah kon li leen di wax rek mooy encouragement bi rek mooy dara gis nga nit du def lu mu yàlla du fay du fay du fay du fay wax jëf yu fay fa man yaamal misqaala saratin xayran yara fa man yaamal misqaala zarratin charran yara yàlla moo wax moo wax lu fi waay def yow yow yow yow la boo fi defee sa doole yow la su même xobu boo fi ñëwoon sa dëgg defoo dara sa wala yàlla fay la fay la tiyaaba ñëpp xam nañ xalxus fa tabarakallah sunu maam Siraaj Maali ko rëdd rëdd ko boole ko bokk koog nag ay ay ay ay mbokku nekk fi nag di liggéeyal yàlla ku fi ku nelaw mu ñu mu ñëw denc la am na ku ñu fi denc ku ñu wax euh, mam mam mbër mam mbër mam mbër si la tudd rakku rakku la la si Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick bi muy dem màkk dem dem aj dem di dem aj moom la denk kër gi yëpp waaye moom moo njëkk a nelaw Siraaji Malick waaye bi mu nelawee 1920 Siraaji Malick xam nga lu mu wax si làmm ñi sëñ Abdou Aziz Al Amin sëñ Siraaji maam Siraaji Malick ne na ko mbër da nga ma nax foogoon naa ne damay dem bàyyi la fekk njaboot gi nga nga taxawal ma ko waaye nga dem bàyyi ma fa waaye nag yàlla moo wax waaye yàlla moo xam mënoon naa ko jël mënoon na ko jël yóbbu ko ci jàkka ja mais daf ko indi fii bi mu ko fi dencee nag ba pare toog mu ni ah xel dal na comme que mbër mi nga xamante ni moom mooy sama mooy sama mooy sama mooy sama mooy sama mbrak mi ngi si sëg yi fa tabaarakallah képp kuñ fi rob juróom-ñaari kilomètres yëpp man warul naa warul naa la kooku nag xel mu dal la sa tamit dañ koy sant yàlla bu baax a a baax nag di wax nag képp ku fi ku fi ñëw rek ñun am nañ yaakaar ni yàlla dina fas ci aajo baak Seydina Muhammad salaay salaam ñii wax ni lii dara dàq ndax ñii fi tëdd tey jii kontaan nañu lool ndax lii rek la leen deseel ñëw di leen defar di leen ñaanal yàlla suñu borom yàlla yërëm leen tey yeexeñu moo am solo ndax lii lu am solo la si Tiwaawan baleb armeel yi tey ji dara jeexu si armeel yi kon nag nañ ko sante yàlla bu baax a baax a baax a baax man àjjuma bu jot damay ñëw si armeel yi di defar ñi ma àndal dama leen a recensé ñoom Ibou Naar ak ñëpp ak ñoom Gowla Gueye ku si ne man la armeel diwa ngi nii ndax loolu dafa baax si ñun niñ leen di ñaanale di leen defar noon la ñuy ñaanale kon nag dafa jar a fonk armeel dafa jar a fonk ndax mooy këru dëgg gi mooy njëkk mooy mujj kon nag lu jar a sant yàlla la kenn jeexul. armeel yi koo gëj a gis gis ko ko si armeel yi ñuy ñaan yàlla yàlla ba muy suñu mujjub gàmm yàlla nañ ko yàgg a fekke te buñ ko fekkee yàlla nañ ko tal si barka yonante bi salallaahu alayhi wa sallam waaw tànk yi moom comme ni ñëpp ñëwee rek waaw parce que doomu Tiwaawan lan eh, gis nañ ko ñu dugal ko ci Facebook bi réseaux sociaux yi lañ ko gisee wareef la vraiment en tant que doomu Tiwaawan ñu ñëw ci lépp li nga xam ni tey Euh, mën naa ni fii ku nekk am nga fi mbokk waaw sama waajur Mayacine Samb fii la tëdd sama mag bu ma bokkal ndey ak baay mu ngi fi samay maam samay samay ndijaay samay dëkkandoo sama ñëpp daal Tiwaawan moom ñëpp ay mbokk lan wax dëgg yàlla kon ñoom mënaluñ seen bopp suñ nee dañ ñëw bàyyal leen armeer yi ñun dañ fi war a ñëw ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla def ñu nekk ci kaw àdduna bi lolou lolou leen fi ñëwé wax dëgg yalla mu nekk ñëw bu naturel aussi waaw daf ñu war motax ñu ñëw def ko machallah euh, lan ngay yaakaar ne war nañ ko mëna améliorer ci armée yi. waaw armée yi moom euh, liñ fi mëna améliorer bari na. parce que gis nañ ni euh, maanaam néew yi niñ ñu leen di ni ñu leen di dencee. war nañ ko gën a mën a organiser waat. parce que boo gisee ci nin nin koy nin ran nin leen di rangé maanaam na gën monon na gën nek lo xamni lu professionnel la parce que gis na ay armères yu bari non lay demé té gis na yenen côté sax non lañ ko commencé di organiser aussi parce que armères yi xat na te it wax deug yalla laaj na organisation laaj na aussi comme niñ ko doon défé di tabax ci bir armères yeeg vraiment yenn euh, yenn yenn bâtiment yo xamni day jël espace di occuper espace té fi ku ne ñaan na yalla yàlla na yeex boo génnee dëkk Tivaouane ñu indi la fii kon donc yooyu il faut ñu bàyyi ko xel mais vrai que ñu ngi gis bon ñu ngi commencé di koy réorganiser euh, tabax amatu fi dara amatu fi mais laaj na vraiment daal entretien à chaque fois li waru ñuy xaar sax chaque année mais war nañ de temps en temps ñuy woote parce que buñ wootee ku ne am nga fi wàll nga ñëw jàpp ci comme ni ci ñëpp jàppee armères yi set parce que tey jii sécurité la ci ñi nga xam ne dañuy ñëw di ziar si que ni armères yi mel ni mu war a mel leer parce que ñax fu mu bari ku ne xam na ni sécurité man na fi bañ am. waaw surtout nawet bi ñu nek ni vraiment daal ñu ngi contane lool ci jeunesse bi. di am fierté ci ñom que ni bin wootee li ñom ñëpp ñëw nañ. vraiment teel a liguey liggéey bi tel ko bale mu set. machallah ñun nak wax yalla euh, en tant que député. lepp lo xamni tay apport la buñ wara mëna def pour tuane gëna mëna jëm kanam. ci kàttanu yalla fa la ñu ñëpp di xaar tay dinañ ko def ci carton yàlla. di sant Serigne Touba sunu wasila ndax ginnaaw ba nu ko gëmee yaakaar ko doyloo ko ba daf na wax kuy Cheikh Ahmad Tidiane Chérif wan nu ni mu mel ci malik Malick rabiyallahu taala anhu moo tax bu nu déggee liggéey alaaji Malick liggéey bu jëm ci Tiwaawan lu tol ni mbayum armeel yi xalxuus bàqee Seydi As Malick ah dañuy jël sunu alal ànd ak sunu njaboot di njabootu ndimbal jaboot ci ndigalul ajaratu ako njaay présidente nationale internationale man soxna jenn nag maa jiite kuréel googu waa ne gënuma leen a jàmbaare waa Kër Baakar fajar la ñu ñëw lu ma leen joxoon ci xaalis pour ñu defar benn def nañu juróom takk seen digg ba léegi sonnaguñu ba commencé di joxe kafe fukki nit nekkagul ci armée yi tabaar ba léegi sunu kafe jeexul sunu saakoy ndox jeexul te lu fi des ñu yët ko sëriñ Mbay bàyyi sëriñ bay di ñaanal yàlla jàmm gudd fan ak wér ak sutura sax dàkk yàlla yàlla na def jàmm ci Tiwaawan jàmm ju baawaan te dañ ñëwoon di jàpp ci liggéey bi ngir nettoyer armée yi comme ni ko sëñ bi wootee rek tey gis nañ population bi tey teel nañoo génn def nañ ko da xoola fi mu toll nii 11h mooy soo ko jot liggéey pare na li di ñaan daaw daaw daaw jéeg dañ ñaan de ba 13h mu des ay tuuti tey xoolal pare na kon mooy wanee ni engagement bi population bi am ci topp ci topp benn euh, ndigalu sëñ bi muy benn ñaar ñu ñëpp xamoon xa dañoo xam ni fii nii nii fii ñu ñoo ko moom fii moom leer nañu ni ñoo ko moom ndax ñu ñëpp fii la ñuy suur léegi population bi yeewu nañ ci loolu moo tax ñu ñëpp ñoo jugal seen bopp topp ndigalu xalif bi mu woote ñu ñëw fees dell nettoyé ko ba mu set lii nag mooy wane ni citoyens yi léegi xam nañu ah, li ñu moom ak li ñu moomul ak li ñu bokk di ñaan di ñaan yàlla suñu borom suñu xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Mansour suñu borom gën a dolli wérgu yaram bi gën ko fi yàggal sëriñ Mbaye Sy Abdou suñu borom gën a dolli wérgu yaram bi gën ko fi yàggal ñaan waa Tiwaawan suñu borom dolli leen jàmm dolli jàmm waa Tiwaawan dolli jàmm waa Tiwaawan ndax jàmm waa Tiwaawan mooy suñu jàmm ñun ñëpp te waa Tiwaawan bu ñu amee jàmm dara tëwu leen waa bu ñu amee jàmm incha allah dara tëwu leen ngay ñaaneel jàmm di wax ni nag euh, lii moom bu baax la loo xam ni saa ñu wootee rek ñëpp war ñoo ñëw jàpp ci Tabarakallah, bu ngeen ñu gisee tay ji ñu ngi dëkk Seydil Hadji malik fan ci dëkk Seydil Hadji malik muy khalkhus sëgi baqiya bi nga xam ni nii moom la Seydil Hadji malik tuddee baqiya bale ca madinatul munawara fa nga xam ni nii yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay sahabaam yépp ñoo fa tëdd tabarakallah ñu woote woon ka nag tey jii lañ ko doon bay di set setal ku ne xam ni guddig Seydina Muhammad guddig juddi gi màggal juddi yonent bi sallallahu alayhi wa mooy waaj te xam ngeen ni Seydil Hadji Malick waxoon na ni tanabbahu anna nuural xatmi laylakum xad xalla min xiimatin min adharil xiyami an atiru baxiiru xayral buxuuri wa afrisu sajadati takriman alal xusami Seydil Hadji Malick ne màggal leen juddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bala ngeen kaa màggal tabaarakallaahu na ngeen bale seen kër raxas seen néeg nettoyé seen ëtt tabaarakallaahu ngir lan ngir màggal juddug Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa moo taxoon tey jii waa Tiwaawan xëy ñëw sëgi Seydi El Hadji muy bàqee doon ko set seetal waaye nag li fi am tabaarakallaahu gëj na am ndax heure bii daan na fekk mbay mi du jeex waaye jeunesse si Tiwaawan tabaarakallaahu ànd ak takku ànd ak passif xam na ni Tiwaawan moo leen ñor ñu wër rokaat bi yëpp tabaarakallaahu bay ko bale ko ku nekk gis na ni fii ni mel tabaarakallaahu ki nga xam ne nii moo ko daan baaxoo daan ñëw muy Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ñëw na tabaarakallaahu bi mu ñëwee xérte gu taalibe yi am ci moom tabaarakallaahu fee mu nekkoon xaw a tàng léegi ñu ne ko defal ñaan tabaarakallaahu moo tax waxtaan wi mu daan def tabaarakallaahu amul temps bi ndax mbir mi dafa teel a jeex ci nit ñi bare léegi nag ñun ñu am ñëwant si moom ni ko nag góor gi defal ñaan rek tabaarakallaahu nga ñibbi tabaarakallaahu mu def ñaan ñibbi na tabaarakallaahu ñu ngi ñaan yàlla nañ ko teewaat ay déwén yu bare di ñaan gàmm gi gan ñi ñëw yàlla nañ ñëw ci jàmm yàlla nañ dellu ci jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku am gan nag teral ko moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax moo tax Seydi El Hadji Malick ne koo xam ne nii yaa ngi biir Tiwaawan na nga génn sa néeg génn sa kër jox ka gan ñi waaye ganu kan nga koy jox ganu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax Seydi El Hadji Malick xam ngeen ni wootelul boppam dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wooteel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fépp fu yonent bi teg tànkam bu tegee man Seydil Hadji Malick dinaa fa teg tànkam asimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal araami udulu ala asimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal araami udulu boo déggee loolu Amadou Seydil Hadji Malick ne màggal leen guddi judd sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñu ne ko lan lañ koy màggalee mu ni nañ ko màggale ci mbaax ci jàng alxuraan ci sikar waaye buñ ko màggalee ci ñëw fii di ngir am yéene def leeneen kon tabaarakallaa koo xam ne nii nar ngaa ñëw Tiwaawan ngir leneen Seydi El Hadji nee na nga toog képp koo xam ne nii nar ngaa ñëw pour màggal juddu Seydina Muhammad Seydi El Hadji Malick ne bàyyiwul kenn bàyyiwul benn jullit na ñëpp ñëw Tiwaawan tabaarakallaa di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee gan ñi ñëw yàlla na leen yàlla indi yàlla na leen yàlla delloo ñi dëkk Tiwaawan yàlla na leen yàlla may teraanga yuñ teralee gan ñi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah aji malik nena wal ummuma riyatun law aasha fadbihi alqibtu fawzan aziman